Xeeru Ngor numéro 2 hey sëñ Bas mbaa sit amul sëñ Bas yow laa ragal yaay faar bàyyi ji lii mooy lii mooy prudence parce que ñetti juge ñaari juge ñoo fi ne ak arbitre central bi muy ñetti ñoo xam ne seen bët yëpp mu nga suuf ba xam ndax suite am na wala amut bu concertation amee ba ñu ne nañ waat rek man damay jàpp ne loolu mooy yoon parce que yëmbal jëli na mais boo yëmbal li bëgg. na ku yëmbal jël na ku mbot nañ ko yëmbal bañ na yëmbal bañ na mbaa ko daan yëmbal bañ na daan na ko boo yëmbal daan na xeeru ngor boo yëmbal daan na xeeru ngor ma ngay jooy Bas xolal.